Malick Coumba Malick Coumba jógal naaj bii Malick Coumba jógal ci naaj bi nga tëdd Malick Coumba papa bàyyi ma amaa bëgg a sama tiyaaba bi yokku boo yàlla boo waree da ngaa war a yokku sa tiyaaba Malick Coumba nii nga yokkee sa tiyaaba yu tamit nag ah Malick Coumba yow da ngaa def wu boor yàlla buy woor day war a xam ne boor yàlla la waaw baax na yow na la leer ne man amul lu ma demee kër sóor xam nga ne kër sóor seeni ordonnance dafa metti pare ah baax na xam nga ni kër suuf seen ordonnance métti ni métti boo xamante ni maali man fu ni nii di nga maam ñàkk jom yow est-ce que nga sax maali kumba ah maali kumba baax na li ma metti nag du yow kese de waaw kër gi moom dinaa ko lijjanti ci nii wala ma lijjanti ko ci naa waaw bu dee woor na nag dina ma jaaxal. Orange lan la. Eh, yaa ma dégg. maa ngi lay dégg bu baax. fii ba bañ a dox. ku tudd ku tudd sa morom rek góor jigéen nga dégg. déggal ci loolu. xooloo naa ak yow sa morom góor jigéen nga dégg. yow yow góor jigéen kan kan kan wax góor jigéen ma ne la eh nga wax ak sa doom. Ah, moo ne la soo wax soo waxatee nekk góor jigéen te yaa wax. xam nga maa ne ku ma dama ma yabal samay moromu nawle. xam nga danga belum yab danga ma yablu nag ci samay kanamu ndaw la nag du ñoo xam ne damaa war a defante ñoom te ci koor gi damaa bëgg damaa na seen réew yooyu yem de xam nga chef de classe yëg na li xew police ak sori ko duñu wax ak benn bu fayda. ah waaw <laughs> ah, baax na. waxuma loolu ci jóge na dañu ñëw de. ñëw yes. xam nañ leen. xam nañ leen gees bu dee man seen dina leer bu man man seen dina leer. Malicoumba jógal naaj bi Malicoumba jógal naaj bi moo fi indi problème. xamante nañ. waaw waaw ku daa sa morom. doo góor jigéen nga. barke yonent bi. asalaamaaleykum. Ah. maaleykum salaam. Diagne. Diagne de yow de yàlla la andi. Ah, moom ah Diagne ah. moom ah Diagne ah. maa de maa jàmm sa tala. ah waaw dama yaakaar na ngaa jaar matu. fa sa tala jëndiwuma sa tala damaa jël sama décision ferme gi. ah. di nga xam nga li nekk ISRA. ah déet xamu nu fi ne kay. xamu nu fi ne. ah sa tala rek sa tala rek la dama yaakaar ni kay. waaw ko ni mu tàngaale. Ah. koor gi koor gi bëgguma ameel kenn àq. danoo nekk ci sëwru Ramadan. waaw te wax dëgg yàlla di ameel nit dëgg la baaxut ci réew sëwru Ramadan. Mm. te yàlla boo leen boo leen defee tiyaaba benn. Ah, waaw ma yokkal leen ko ñaar. Ah, waaw boo leen ko defee ñaar ma yokkal leen ko ñett. motax dal fuma jëm bu jëm amé amee kenn ak gàddu sama sartale bi fuma japp fek ma japp ba sel idi la ta xam nga sama sama jàpp dafa nga aw toj idée la idi la sawuma nak sawuma bu dégg waaw man kay dégg li ma li nga def ni dafa rafet ndax yeen sa nga dox ci mbedd ba yag dégg ni non nga bëgg jadd julli jàkka ji du am ndox nga bëgg dugg ci ay kër tax mo kër ga nu mu këroo te danoo am ay mbokk yo xam dañu bokk ñum dëkk bi jërëjëf su dëgg jërëjëf pata moo tax nii nga def ni nii baax man mi lit na ci na ci na ci sax ci de waaw waaw lan la man naaj wi ba doon lay sedd. looy laaj ci naar yi naaj woo xamante ni kër gaa ngi ni fii tollagum doo ñëw ni toog nii ci kër gi tamit maari kumba yow mii. naaj bi daa commencé tàng ah, baax na baax na. Eh. léegi nga dog eh. léegi nga dog nag. Mm, nga siburu fi nag ma. ñaar boobu laa. nga lay bàyyi ci motul sama sat la boobu. mun nii rek ba këpp ko fi nag. barki yàlla bu. waaye Diagne Diagne ñii dellu na waxal. jaaj ñii ñàkk nañu jom ñàkk jom goo xamante ni jaaj dañuy xëy teg seen i sa seen i formal di ndékki suba ba mu jot. ci koor gi ci koor gi gën a gën maa ci teg sama bët laa la wax. ñuy ndékk fii yónnee gone nu jënd leen mburu xale yi jaar nii traversé ma teg sama bët. ah dégg nga dégg lu ma ci man. lu ma kër gi wax naa waay waay dama la respecté la sama papa. jërëjëf nga noppi yow sa yoon nekk ku am ku doo lakk respecté la sama papa. ku am ku doo lakk de. waaw man maa ngi gën a réew nag. Malicoumba. maa ngi gën a réew. paa bi du sa morom. Malicoumba. da nga kaa war a respecté. Malicoumba bul dóor da nga kaa war a respecté laa wax. Eh, eh, eh, ay yow waaw eh. eh kay ci sa kii de. bon mu yee nag. bul dóor eh. Ah, man fii laa bëgg a wooree bu ma wooree police. waaw te jeex na toogal rek toogal. ànd juróom-ñaar moom dëkk ak ay dof moo gën a métti yow. yow moom daf ñëw ma jëlul fa place yow. fayda

yéen ñaar ñëpp la ñuy waxal. man dañu ñoo lii dañuy fay suñu xaalis. waaw kay. man ngeen di xoolal kii. bàyyiwuñu kenn yéen ñaar a doon wax bàyyiwuñu ci kenn. muy yaay doom ndey gis nga kër gi moo am ay paa yoo xamante ne dañuy accès yiw ñoo gën a baax. waaw da ngay xëy rek fekk ma ma ma. sama jàpp toj sama jàpp toj parce que waru ma wax ak ñoom. Ah. sama jàpp toj may ma jàpp. sama jàpp toj. ma ne sama jàpp tujul bu yàgg sax man mii. ah est-ce que sama njàpp tujul bu yàgg. loolu yow la loolu yow la loolu yow la ba ba ba ma jàpp ma jàpp rek war nañ ko mën a tënk. yaakaar ne yaakaar ne ah damaa yor jéeg de. ngeen yaakaar ne yéen yéen yéen kër gi mënu ma leen fekk yéen ngeen waaw. ah waaw baax na. waaw baax na. lu leen ñu taxul nga génne. taxul nga génne. mais dama dama yor jéeg ci biir de. jéeg laa ci biir de. moom sa dëkk rek nga ne ku wopp na dee loolu amul. waaw baax na ba yegg ca. bu nga ko yegg. laa doon yegg ca ngeen xam ne. waaw baax na.

loolu loolu yaru na maana mhm. yaru na maana ah waaye waaye daal moom mhm. lii moom bu ko bàyyi bul bàyyi dem bul dikk jaamu yàlla bu wér a ngi jaamu yàlla ngi nii bu wér waaye waaye nag toog nag moom di defante di ma di ma sànni waaw am na lu ko gën de nañ ci dem ñu ne ñu ne yéen la nañ ci dem baax na baax na sama jàpp ko jàpp ah, ah waaw am moom comme que ñu ngi noonu noddu sax daanaka boo paree foofu al moom ma jàppale benn yoon lii moom faa man njàpp rek njàpp lu toog boo leen bëggee taasukat ak tëggkat bool da ngeen di seet boo xar jàpp moom mooy taasukat tëggkat bool bi man dama tëggkat bool ci koor lañ ne jaañ ba pare am ma jàpp sama jàpp tañ ah ah ah, ah ah ah man jaañ ba pare am ma jàpp laa ni wala déggoo ma ba wax bu waaw yé waaw ba dina leen liggéey de sëñ Nour Moussa ama sax la ma jàpp jaaj ama ma jàpp jaaj déedéet pour ma kay aan man damay jàpp sama sar lagi duma ko way cokket man rek maa ciy jàpp doxu sam dox xam nga ci nekk léegi man su ma sama sar la jéeree te xam nga ni damaa xam ne tayal waaye am na ma jàpp yi tamit bu noor see jàpp yow tamit neexal waxal yow tamit potaas potaas yow tamit neexal waxal bul tooñ potaas nit ku baax du tooñ man pour Ah, panas pul doon nga jot tamit. Wa baax na Ah. Kifa. apa yaay. Ah wa iya yeesal waxtu. Yow xana déggu lim wax. Wa kian yeen gak est ce que mom. Yow xana déggu lim wax. Ni man abaluma man ngay leer ngay wax ay abaluma ma japp. Ku dul al papa. Mi nga wax sank tubay xobu mo la jur. Papa yaay. Ah ma sat la bi ma di. Jël sa ya? la ge malikum nga dem japp fe nga dem dor fe ta. Malikum alu bala. Jaan joko? ko. Rama nga jox. Jaan jox ko jox ko. Waaye bu rama joxuma ko xam naa li tey joxul ki sax la gi maaleykum da ngaa mënta bàyyi tamit nga def naa nga wàcc sa dóor bi. foofu jaay ma sangaar bay de. jaaj bu ñu yegg ak moom foofu jaaj bu ñu yegg ak moom foofu jaaj. Ah, dégg nga bàyyi ndey naa li ma la wax ko que dugaloo loxoom ci biir tubéy bi rek am na muy tekk baal. bul yàq ndox mi bul yàq bul yàq sama ndoxu sam-sam bi bul sama bi. maaleykum ba boo paree noonu rola ci pom boobu noonu Malick Coumba li ngay bul toj waaye kii day yeew da ngay yàq pom bi Malick la bokkul kii li muy def nii moom tanda tanda tanda lan la awaay ah, Malick Coumba lan la ah déedéet nag Malick Coumba ndoxu sam-sam bu xàmmee na ndox couleur ndox xàmmee na ndox ndox rëbbi na xàmmee na ndox xàmmee naa lu muy mel Malick Coumba ndox rëbbi na na lay mel day weex day yàlla kay bu bu si am day mel ni lu xaw a bëla day xaw lu xaw a xàll ndoxu sam-sam day xaw a mel ni lu xaw a ñuul ndoxu sam-sam lii lan lan la lii lan la meew meew ndoxu sam-sam moom la kii xam ne na meew en en naar kii xam nga a meew bu dul meew. li ndoxu sam-sam la. mbalit boobu bu ñu yàq sama ndoxu sam-sam. paa bi fi indi sa dara bu ko cent franc eh. mu jënd meew ñu def ko fii di naan naan la ñuy jàpp. xam nga ndoxu sam-sam ni ñàkk rasu. dëgg ñàkk nga jom. yow nijaay lan mooy sa problème. nijaay yow chaque jour bu nee rek nga ne damay dog fu añ bi toll te sax yow maa ngi amal bu la dara métti yow. est-ce ndogum tey jii. Ah, metti ma ah il faut que dara metti ma mu mënu maa woon góor-góor di woor ñoom ñu ñàkk jom di bu dëkk yi. ma ne dama tàmm mu dàq lekk ci kër gi. ndoxu sam sam mu jaay jaay jaay ngeen ndoxu sam sam. mu yàq sa bu kii waay. li lu meew li lu meew. meew la waaye wax naa meew la. yow kaay bu la dara metti Maali Kumba kaay. yow mu naan mu naan mu naan ma baale. Mm-hmm. Ah. ma baale. wala bu ma leen baal. day ah. pompe. ah day day ànd ma baal leen. Ah. ma baal leen. déedéet baal bu ma leen baal. bu ma leen baal bu ma leen baalaatee. kon ñaar